اللهم صل على محمد وآل waaw ma maa ngi nuyu yëpp leen gërëm di leen sant di leen xamal ne comme ni ngeen daan gis rek depuis vingt ans dañu daan indi ay tàndarma ci weeru koor gi indi ay vivre yu bare pour dimbale suñu mbokk yi nga xam ne dañu néew doole yàlla def na nag euh, ci at yi passé situation bi dafa xaw a jafe tuuti jafe na parce que am na Covid te am nañu aussi ay difficulté ci côté administrative kon loolu moo tax ren indiwuñu yooyu yëpp waaye ñu décider li ñu am ak li ñu mun ñu def ko fii ci Sénégal loolu moo tax jënd nañu lu ëpp 30 tonnes ceeb ak huile ak sucre ak du lait pour dimbale suñu mbokk yi loolu nag dinañ ko def fii ci dakaar def ko ci Kaolack def ko ci gox yooyu foofu dëkk yi nekk ci wetu Kaolack nga xam ne am nañu ay école am ay taalibe def ko Kolda def ko Vélingara def ko ba Daarul Hijrat incha allah eh, loolu moo nekkoon yenn bi eh, fekk na aussi suñu doom yi étudiants yi nga xam ne dañu jóge ci département Vélingara euh, xaw ma exactement sax ci ban commune mais xam naa ne ñu ngi dundu dundu bu bu difficile te te dañu war a jàng dañu war a am ay notes yu baax kon seen ma yi yéene ñoom tamit yónnee leen dimbal ñu soxla ay laa ñu yónnee ko ay ceeb ak diwlin loolu du mun a régler seen problème yépp waaye dina leen mën a dimbale tuuti loolu moo taxoon ñu def tey lu ñu def e, ñu ngi gërëm yépp ñu ngi ñaanal yépp maa ngi ñaanal Sénégal yépp jàmm ñaan ñu def weer koor bi lu bare ñaan ñu yàlla may ñu possibilité e, ñun ñépp gudd fan e, wergu yaram ak yàlla ubbi warzig yépp xam nga suñuy ñaan guddi fan ñu bare dañu yaakaar ne nit ki dafa bëgg a dund déedéet li ñuy ñaan gudd fan mooy pour yàlla may la nga am occasion di ko gën a jaamu te li nga xam ne da nga ci juumoon nga jéema ko rectifier loolu rek mooy tax ñu wax ñu ñaan gudd fan kon asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu. allahumma salli ala muhammadin wa محمد